ki nga xam si moo di bu Benno Bokk Yaakaar groupe parlementaire Benno Bokk ni euh, euh, moo di Abdou Ndaw Abdou Mbow la mu xamle moo di Abdou Mbow bataaxal bi mu bind jubluwu ci lenn lu provocation maanaam day wut ki nga xam si ni moo di Elimane Diallo di Ousmane di bind bataaxal rawatina lu jëm ci wàllu wàllum ndaw ñi ndax ñoom jamono ji ndaw ñi leen naqari ba ñu koy dund ci ay métit ñoom ñoo leen ko teg moo di nguur gi nga xam ne moo wees woon ba tey Abbas Fall bokk na ci la moo xam ne ne mësta gis lu ni mel ñu koy bind di ko jébbal euh, ñu ko bindee jëmale ci wàllum euh, péncum ndawi réew mi di assemblée nationale ak bari yoo xam ne wax na ko jëmale ko ci nga xam si ni moo di Abdou Mbow di kaddu yi Abbas Fall yaakaar naa itam toon nante lay doon ba tey ji ña nga ci rythme ba nekkoon Omar jëm ci wàllum politique wax fi indi fi ak dàgg bu dul jeex non man moom <clears throat> ànduma ak euh, Abdou Mbow mais je pense que Abbas Sall Abbas Fall sa réponse est nulle. <laughs> oui non xam tax parce que daf ko répondre si ñaari ñaar ñaari ñaari point mm-hmm. daf ko xas ci mbindum français. Mm-hmm. xas ko ci mbind bi ko yàlla bindee. man loolu laa gis te ñun lool loolu taxul ñu fal leen. Mm-hmm. Ousmane Sonko mas nay def conférence de presse ba si yàgg mu ne du ma wax français sax olof laay wax pour sénégalais yépp man ma dégg. est-ce dégg. cest à ñun ñun. ñun ñoo fi woon France dégage. France dégage ne veut pas dire que bu ñu làkk français de mais ça veut dire que ñun mbindum français ak làkkum français temps bi muy jël si ñun. dafa ëpp ba mënuñoo jàng xam-xam. da ngay gis ku jàng vingt cinq ans làkk français rek la man soo ko waxaatee loo mën a liggéey xamu ko donc Birahim wax na ko. barki démb xaw ma démb. mu ni bu njëkk député yi. dañ daan dem xool dictionnaire bi xool benn mot bu rafet ñu ñëw bëgg ci tànqal nit ñi c'est-à-dire il faut qu'on arrête avec ça. loolu loolu. non même dëkk àll yi nag ba léegi. bilaay moo ko doon wax à l'Assemblée nationale même dëkk àll yi même dëkk àll yi boo fa am ba léegi. yooyu boo ñëwee nag pour nga nekk intellectuel ñëwal Dakar nga jàng ba pare ñëw nag ci dëkk ba nag. di leen amee nag waaw di leen amee <laughs> non il faut c'est-à-dire am na benn xam-xam sax bu defoon temps yële benn conférence. mu ah. mu définir que ni suñu xale yi suñu lay soo leen di jàngal mathématique. Mhm. soo leen ko jàngalee ci français il peut prendre des semaines pour comprendre. Mhm. soo leen ko jàngalee ci olof sur le champ ñu comprendre ko. ci lu wér mais mais mais léegi kon ñu ñuy jiite ñu bëgg a ñëw glorifier francais bi làkk mhm. français fan la ñuy yóbbu. war lu ñu fi indil ay femmes nues femmes noir vêtues de la couleur qui de la couleur qui est vieillesse xaw ma lan ak lan ak lan léegi beneen bi mooy nañu éviter beneen affaire. waxoon naa ko dama koy waxaat combat de gang ñu bëgg a def. kii wax na kii lii xaaral ma ñëw défendre ko pour wane ne ko maa ñoo far. Mm-hmm. il faut que idée partisane yooyu ñu arrêté ko. Mm-hmm. Guy Marius Sagna moo fi njëkk a bind ay lettres. Mm-hmm. di laajte ay leeral yu jëm ci ay lettres yu am solo. di laaj ay leeral yu jëm ci organisation ci mbir yi ci yenn yenn tontuwuñ ko si. lan moo tax Abbas Fall tontuwul Guy Marius Sagna. parce que ñoom ñoo bokk bokk équipe. te te te te te kii euh, Abdou Mbow. député la comme Guy Marius Sagna. c'est vrai que question yi mu posé. moom hmm. Abdou Mbow il n'est pas l'idéal pour poser ko. parce que moom moo jug ñoom ñoo jóge ci réew bi lii lépp ñoo ko provoqué. ñoom ñoo sacrifié askan bi yépp hmm, hmm. mais man je prends un Abdou Mbow comme un X. qui pose une ex qui pose une question relativement boo xam ne dina amal njariñ askan bi. mais na ko na ko Abass Fall. Abass Fall su mënul wax sonk na tontu Abass Fall na ko tontu tontu yu scientifique. Mhm. tontu yu technique tontu yoo xam ne nii le sénégalais su ko dégloo. Mhm. dina xam ne ah ndekete ñii am nañ solution bu ñu apporteel mhm. mais nit poser la question nga koy xas. nit déggoo français yàlla ni mu la bindee dafa ndaw. loolu bàkkaar la. Birahim eh, yoon la woo xam ni waaw mi ngi noonu nañ caa mën na caa dikk waaye tamit damaa bëgg ñu jàllale ci rek waxaale ci.